da nag nit dafa amuk yàkkamti loolu dafa yàkkamti suñu borom moo bind doomu aadama mu yàkkamti nga xam lu maa doon day bëgg mu sotti tey tey tey te suñu borom bindewut noonu àdduna ndax nit sax bu juddoo doon ab liir la muy jëkk jàng mooy nu mu yëngutoo bu mënee yëngutu la muy jëkk jàngaat mooy nu mu jóge diju mën a diju bu mënee diju la muy jëkk jàngaat mooy jóg xaw mën a taxaw ñaari tànk bu mënee taxaw la muy jëkk jàngaat mooy mën a dox bu mënee dox la muy jëkk jàngaat mooy mën a dox étape yooyu nag nit di jaar adduna bépp ci lay jaar ñu noonu la adduna dox fi mu toll nii fokk ndànk fa ndànk ndànk fa ndànk dara du ci dara mënti tëb rek sotteeloo benn loolu di ko xam da ci baax nii bu ko defee nit ki bu jógee ba weesu marta boobu la muy jëkk la muy jëkk a def ci ku ku nekk ci àdduna mooy di sukkandiku ci nit ñi gone baayam ak yaayam ak meneen mag mu jëkk ñëw rek ci yow lay sukkandiku baayam ak yaayam ak mag moom ngi jëkk gisal waaye day dem mu jàgg nag mu mën a sukkandiku ci boppam di dem di dem ak ñëw kenn du ko yóbbu duñ ko fab duñ ko yëkkati mu mën di dem ak ñëw dama dem ba ci étape boo xam ne nag day sukkandiku ci nit ñi nit ñi sukkandiku ci moom mooy nit kon étape bu mujj boobu bi nga xamante ne mooy ngay jëflante ak nit ñi ci di leen jariñ ñu lay jariñ nga mënal leen nangam ñu mënal la nangam loolu mooy étape bi mujj ci doomu aadama te doomu aadama du ko weesu kenn du ko weesu moo tax nit li mu war a jëkk jëkk yëg rek mooy faqiir la antumul fuqaraa ilallah mooy ñu soxla yàlla ngeen waaye yàlla gisoo noonu nga soxlaa nit ñi it nag nit ki ni mu aajowoo yàlla noonu la aajo yàlla koy aajowoo benn seconde bu ne yaa ngi ci aajow yàlla ndax euh, noyyi gi ngay noyyi muy dem war a dellusiwaat képp bu yàlla téyee loxoom du dellusiwaat te mënoo ko ñàkk kon yàlla moom benn seconde bu ne nit ki daf koy soxla waaye noonu mu soxlaa yàlla nag ci seconde bu ne noonu lay soxlaa nit ñi ci ay jamono